RFM Matin RFM Matin bi yee waa Sénégal. RFM Matin sunu gan ñu nuyu ko salaamaaleykum euh, Abdoulaye Ndao. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nga ci imaam ndaw bi nga xam ni yoon da koo teg loxo. Mm-hmm. ab diir a ngi nii te àtte nañ ko ba noppi sax ci luñ ko jiiñ moog yeneen i sénégalais ci ne dañoo doon sàkki pexey indi fii ci réew mi wàllu terrorisme ki defi attentat ñoom seen en tout cas saxal fi li ñuy wax terrorisme te ñu xam loraange yi mu def ci àdduna atte bi jeex na def na diir diggante euh, tuuma yeeg layu avocat yeeg ñoom ci boppam ñi ñu tuumaal la yëkkati kàddu ci kanam tribunal dogalu atte bi ñu ngi koy xaar le 19 tribunal war wax lu muy dogal ci Imam Ndaw ak euh, ñeneen ñooñu ñu ko jàppandool euh, yéen itam di ay mbokkam ginnaaw rakk nga ci moom ma fàttali itam Georges Déthié Diop ci waxtaan wi la bokk da ngeen ni euh, bala ñu sox waxi waxi àtte anam yañ ko téye foog naa démb nga fa jógee nga ni anam yañ ko téyee dafa metti ci kaso ba mu nekk ci Cap Manuel fii ci Ndakaaru mën nga nu wax loola lu mu. Alaaji jërëjëf ñu ngi lay nuyu di nuyu di nuyu auditeur ak auditrice wal kii RFM vraiment di rafetlu invitation bi euh, Imam Ndao nekkinam ci prison bi métti na lool métti na ba jéggi dayo jaaxal nañu moo tax itam jàpp naa ne fépp fu ñu ko war a mën a waxee pour mu am solution dem nañ fa jooytu nañ leen ko. fan ak fan ngeen dem. Euh, maa ngi lay fàttali ne euh, Imaam Ndar la njëkk. wala boog rëbës la njëkk bàyyee ko fa dem ndar bàyyee ko fa ñëwaat rëbës bàyyee ko fa dem Cap Manuel fii may wax ak ni mu ngi camp pénal mu ngi fa duggoon 2016 7 le 12 tolloog bésu talaata donc muy jaar-jaar yoo xam ne ni yu métti la yoo xam ne jàpp ñoon ne ab sénégalais war na koo mën a dund fii ci Sénégal rawatina ku ñu tuddee kalifa ab imaam imaam problème yi mu ngi commencé ndar nga bàyyi xel ne ndar ba mu fay dem mu ngi fa fekkoon ku ñuy wax Agnès Jogay moo nekk fi mu ne nii rëbës ba mu fa bàyyeekoo caaka juuf moo ko fa wuutu ca la fa bàyyeekoo dal ñëw. dund na fa dundin boo xam ne nii bu métti la bokk na ci la moo xam mooy cellule bi mu nekk amul guddi amul bëccëg jamono bu nekk làmp bi da koy taal ngir fi mu nekk ni mu ñàkk a normale am na ay bruit yi ak i saaga yu muy faral di dégg mais li ci yéeme woon foofa mooy ña fa nekkoon. nekkoon directeur prison bi ñoom jàpp naa ne ay responsable lañ ñu yëgoon seen responsabilité parce que euh, bi leen imaam waxee ne dafa am ku nekk sama gannaaw cellule bi di ma saaga loolu jaaxal na ma kooku daa dal di génn dem xool bi mu xoolee gis fa cinq personnes ay xale mu ne ko ñii dey ne nañ ci sa kër lañ nekkoon ci sa daara ji lañ doon jàngee dañuy fayee ko donc fayeeku boo xam ne borom ba muy fayeeku day fayeeku ci biir prison loolu yéeme na benn bés dama dem mu ne man kat sama cellule bi dafa mel ni dañ ciy pompe tooke bi mu waxee loolu loolu jaaxal ma mu ne ma sax. lii ngeen di wax ni yëpp bu amoon moom du du feeñ ci moomam. voilà Cheikh Babacar gis nga yàlla dafa yéeme moom dong moo mën a wattu yonent yàlla Ibrahima sànni nañ ko ci safara mu am fa ñeent fukki fan wala juróom fukki fan te dara dara dalu ko. donc yàlla ma nga xam ne moo ko doon aar moom Ibrahima lañ gëm ne yàlla moom moo aar imaam da waaye su nekkutoon loolu moom waxatuñ ko. c'est parce que bi ñu ko jàppee ci jàppin bu ñaaw biñ ko jàppee. est-ce tamit nekkoon da ngeen ni politique rek euh, euh, di wax yoo xam ni ngir euh, jéem a jaxase xel yi rek lépp jëm ci fexe ba nu mu génne ci li mu nekk. yàlla tere lii ma wax ay fee la yoo xam ne ñu dañ koo dund dañ koo gis dama ne la bi mu ne dañ maa pompe tooke pour confirmation am na ay weñ yu nekkoon ci sàmbur bi weñ laa la wax de ay weñ yuy naaw dañoo de mu dajale weñ yu noonu ab jur bi ma ñëwee ci directeur prison bi expliqué ko ne ko imaam nag nee na ay weñ dee na fa mu ngi ko dajale ngir confirmation kooku daa daw dem ci chambre imaam bi mu xoolee maa ngi toog ci biiram di ko xaar. weñ moom euh, baygon sax mën na koo faat tam. mais baygon kan moo ko fay dugal xanaa du ki nekk ci biir. ki nekk ki téye ci biir prison bi nit tam. <laughs> waaw damay ñëw ma ne xanaa ku nekk ci biir prison bi ñu téye la amoo boog noo fa dugalee baygon donc loolu bi mu amee directeur bi dem xool ne ma effectivement gis naa fa jóoru weñ. donc kon loolu nit mënu koo miim mais kooku matoon responsable responsable maanaam responsabilité am da koo matoon. parce que bi mu demee gis ko dana ma léegi kon bagage yi imaam yoroon yëpp nañ ko génne dal di génne mbaaj yeeg tout dal di jëlaat mbaaj bi bees dal di ko jox. mais li ñu jaaxal mooy foofa soo ko jàmbataan dana am solution tuuti dana tane mais depuis mu ñëwee campénal ak tey moom fële mbir yee wulle ñaay. campénal bi mu fay ñëw ko fekk jaaji njaay fii may wax ak yow ni Cheikh Ahmad moo fa nekk keroog bi mu fa ñëwee laata muy am semaine toog naa ak moom ak benn kilifa. waaye tam euh, yëf yi bi ngeen koy wax ak léegi gëstu nañ ko tuuti euh, li ngay wax ni Imam Ndao wax na ko sax doyen des juges. juste waaw kooku ne ko euh, léegi mën naa gannaaw yow rek yaa nekk sa cellule te da nga da nga ni dafa yoo fay daj xaar ñu booleel ak beneen prisonnier ah bu ko defee ñu xool yëf yi nu muy demee moom Imaam lànk ne bëggul bokk ak keneen cellule. loolu tam loolu tam problème la. non loolu amul. Imaam cellule am depuis Ndar ba fi may wax camp bu yàggul. ab dof lañ ko boolee noonu loolu bokk na ci li ñu gën a yéem alaaj Babacar ab dof lañ ko booleel boo xam ne waxul wolof waxul français waxul anglais kenn xamul lu muy wax subaa ngoon guddeeg ba ci mu ngiy wax. luy firndeel na dof la. luy firndeel na dof la. nit koo xam ne day faral di waxtu di waxtu kooku soo doo sikk sàkk kii dof la gisee bi ma ko waxee ma wax ko adjoint directeur booba ka fa nekkoon mooy Maurice Bassène bi ma ko expliqué li ci taxawaay fi ma toog la dal di oor ci biir prison bi ne leen kooku noonu ngeen booletoon ak imam na ngeen ko génne. donc boobaak léegi moom moo nekk ci néegam loolu moo ñu yem te man damay wax ne boobaak léegi fu ñu dem jàmbat maanaam fi mu mos a jaar fu ñu jàmbat dana am solution. ba mu des camp pénal mu nekk. Mhm. doyen des juges proposé na ko ñu boole ak keneen mu bañ. non non loolu mosul am doyen des juges ci boppam keroog sorti bi njëkk a def moom dem na fa bi mu demee li mu wax imaam mooy lii de maa ngi koy door a dégg. te doyen de juges man ak sama bopp dem naa ci moom toog ak moom ne ko nag lii sa responsabilité la parce que ne nañ yow yaa dugal imam prison mu wan ma ne ah man kat imam rëbës laa ko dénk donc ba muy dem ndar yëguma ba muy dem feneen yëgu ma kon loolu de sama responsabilité. ma dem pour gis procureur li may wax lu leer naañ la moom xamante nañ su ma déggee dana xam kan mooy wax ma dem pour seeti procureur bi nga xam ne moom moo dugal imam ci prison ba mënuma koo gis. lettre bii ma bi lettre baa ngi nii man maa ko bind monsieur le ba tey mënuma koo gis. lettre bi ministre de la justice laa ko bind ba tey jii dégguma ci dara bii ki nga xam ne mooy wàllu observatoire ci prison yi xamam Marie Josette Lopin Lopes Ndiaye moom laa ko bind. kera moom yàlla dogal na sax moom dem na fa xooli imam bi ma demee la mu fa gis dana ma normalement man la ma fa gis jaaduwul ci nitu diina rawatinaa koo xam ne ab imaam la donc nekkin ba foo ko mën a takk. ci ñaawaay ak ci méttiwaay raw na ko. beneen bi ma ah. lay wax nii am na bés ma dem mu tàllal loxo bi nii xam nga ñoom li ñu bëgg a gëm la mooy ay imagination ak yooyu imagination mënut lakk loxo am na ñu jàpp ni euh, imaam xëy na dafay janeer rek. ndox su doon janeer bu taxawee ci euh, ci tribunal déeru diiru ñaari at wala ñetti at kuy janeer ba foofu da nga xam ne ah kon kii kat commencé na jànnaxe hmm. mais ñi dem tribunal di déglu imaam xam nañ ne dëgg-dëgg kii moom du nit ku ndaw. sànq Babacar eggee na la ab laaj euh, ndax est-ce que du xëy na li tax ngeen euh, commencé di waxee nii euh, comme ñu ngi xaar délibéré bi dernier jour ba sax la imam wax ci kanam ñi nga xamante ne ñooy ëttu ñi nekk ci ëttu bi lan lay daj foofee yen ci waa prison ngeen yemoon wala bokk ñeen ñi nga xamante ne ñooy ay doyen des juges comme ni nga ko waxee pourquoi teelu leen ci woon wax au moins ñi nga xamante ne ñooy xeexal ak ak yelleefu doomu aadama saisiru mbir mi kom ni ko defee jamono ji pour mbir ma leer euh, biñ ci commencé waxee léegi ëpp na ñaari at seen correspondant bi nekk Kaolack yàgg naa jàllale fii élément boobu man ma di ko dégg boo xam ne man maa koy wax kon biñ ci commencé wax du tey ëpp na ñaari at keroog ba moo ko waxee lañ ko commencé di wax kuñ mën a gis ku ne jàpp ne mbir mi war na mën a am solution gis nañ ko gis nañ Assane Dioma Ndiaye Seydi Gassama notamment man dem naa ba ci bureau am ak moom expliquer ko cas bi ni mu demee mu ne ma léegi man danaa jéem a ut médecin pour ñu dem seeti imaam dama ree ma ne ko est-ce da nga am kayit mu ne ma noo suma ma demee gaay sañuñ maa ñàkk jox kayit ñaare fan laa toog mu ooma mu ne ma imaam daa mel ni yow da nga am xam-xam parce que dem naa doyen de juge ne du may kayit ma ne ko waxoon naa la ko donc ñoom caay-caay gañ fay def bëgguñ kenn gis ko. mais pourquoi ñooñu tey comme ni nga ko waxee wax wax ngeen leen ko euh, ñoom jéemuñ jéemuñ woon def jamono jooju li war xaar ba ñu waxee mbir ma ca euh, ca palais de justice ñuy doog a porter plainte. waaw ñoom nañ leen ko laaj lan moo tax jóguñu woon di door a jóg man jàpp naa depuis booba lañ jóg parce que ñoom jóg nañ def ay démarches ngir mën a am kayit pour seeti imam ñu ne leen du ngeen dem ñu def def nañ ay déclaration def nañ ay point de presse léegi luñ ci mënati donc ñoom jàpp naa ne la leen waroon moom def nañ ko état bi nag moom la ñuy o man waxatuma ak ministre. waxuma procureur waxuma doyen des juges Macky Sall ci boppam mi nekk ci bopp Sénégal ñu teg ko fi moom la ñuy waxal. Hmm. dafa am yoo xam ne normalut imaam borom njaboot la. boromi taalibe la kilifa la. waaye ñi ñi ñi ñi àtte itam euh, responsabilité la ñor te euh, dañuy woote responsable mbubboog responsable moom kay euh, yëf yi xaw naa doy waar ndax li li nga doon junj sànq te xaw ma jot ko junj ne dernier jour procès bi. fa la nekkoon di yëkkati kàddu di wax li muy daj ci dernier jour procès boobu sax mi ngi naan dafa am ay vibration ah. yu muy yëg ci ci yaramam ba ci biir tribunal bi moo tax ñu ni est-ce que mbir mi fi ne ni demul ba euh, xaw a lëmbee xel mi euh, euh, xaw a janeerloo ko itam tuuti donc ko koo xam ne xelam am na lu ci nekk soo na ko jàkk wala nga déglu ko ko kenn du la ko wax yow yaa koy xam donc imaam dara dara dalul xelam alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla nag ñu ko sàmm mu dal di ko continuer di sàmm maa ngi doon wax ma ne Macky Sall la ñuy waxal parce que Sénégal moom lañ fi teg teguñ fi sàmba teguñ fi Demba moom la ñuy waxal. bu ñu dem bu ñu demee ci euh, tuuma gi. ginnaaw li yëpp li yëpp li ko indi li yëpp li ko Ndaw mhm. mooy euh, dañ leen euh, wékk tuuma ñoom ñooñu di imaam Ndaw ak ñi àndal ci ne dañ doon sàkku dañ doon ut ay pexem terrorisme fii ci Sénégal bu ñu dégloo témoignage yi gone yi ànd ak moom ci tuuma gi. ak lëkkaloo gi mu seq ak ñooñe nga xam ne demoon nañu ay Nigéria di jokkook ah, waa Boko Haram ak ñoom seen ay joxante xaalis diggante Imam Ndaw ak yeneen euh, booy yi nga xam ne moom la ñoom lañ tuumalandool euh, fi ñu toll nii est-ce que mën ngeen wax ni tuuma gi teguwul fenn du tuuma ak dara ndax liñ dégg ci tribunal bi yéeme na doy na waar ci jëflante ñi ñu teg tuuma yooyu ne doon jéem a indi mbirum terrorisme ci Sénégal. Babacar li nga wax lu am solo la mooy tuuma. tuuma ma yow sax man mën naa laa tuumaal donc nit ki buñ ko tuumaalee. ak i firnde ak i firnde non non. ak i firnde ay ay wane diggante diw ak diw joxante xaalis euh, bu takku dox na ci seen diggante. <laughs> Babacar nit soo ko tuumaalee ba dara desul àgg nga tribunal war nga ko mën a jéem a juge jugement nag foofu ay fee lay laaj. danga naan ko diw yaa wax lii diw yaa def li mais ñun ña nekk tribunal depuis le 27 décembre ba tey. dégguñ fa benn fee boo xam ne dañ ne bii imaam la loolu bokk na ci li ñu yëm gisement ba lañ fa gis mooy loo gëmee nii ak noo gisee lii donc ngëm-ngëm wala gisement mënuñ ci àtte nit. wala suñu xel tey na ci nangam. damay wax ne ku sa may ma ku sa xel tey yow la engagé ku sa xel nga dem ba ci mais ñun suñu xel teeyul. léegi laaj bi mooy. imaam encore may ma ma jeexal ci kële li ma imaam amul kenn koo xam ne. mbaaru da ngay jàmmaarloog ñun itam. <laughs> amul kenn koo xam ne séq ak moom dara xam nga. boo gisee gars yi ku ñu jàpp rek. ñëw bëgg koo collègue imam c'est parce que def nañ erreur bu rëy rëy donc kuñ jàpp li ñu lay laaj mooy dañ bëgg nga chargeel ñu imam waa léegi léegi noo gisee kon. li yéeme mooy jëflante gi nga xamante ne euh, jëflante gi nga xamante ne xëy na doxoon na diggante imam ak ñooñee nga xamante ne demoon nañ ba jël Nigéria ñenn ñi ne sax. ñoom dem nañ ba gisanteeg euh, Chekau. ñooñu demoon Nigéria amul ci kenn ku imam xam loolu dafa ñu yéem ñun ñoom nee nañ xamuñ imaam imaam xamul leen. ñu bëgg leen a kole. Ah, est-ce que loolu nu ñu jëflante ci wàllu koom-koom amul benn bu ñu jëflante. Ibrahima Diallo dong moom moo mos am problème te dafa leer Ibrahima Diallo jus bi da koo laaj. ne ko ñaata yoon nga dem ci imam mu ne ñaar ba ci ñetti yoon loo fa doon uti mu ne benn yoon bi dama amoon problème mu bopp. imaam day faj yu ni mel mu ne biñ ma ko tegtalee ma dem mu ñaanal ma yàlla dogal ma am jàmm ne na benn bés may dem Gàmbi bi ma ñëwee ba kawlax sama xel daj ne ah am na benn sëriñ bu ma jaaroon fii mos na maa ñaanal xaaral ma jaar fa ziar ko bi mu fa jaaree ziar ko pare nee na di dem Gàmbi dem bay génn mu ne ko imaam man kat yoroon naa fi xaalis te comme damay jéggi frontière wóolu ma ko yóbbuwaale ma ne ma dénk la ko mu dal di génne kayit imaam bind mu bind mu signé mu signé juge bi laaj ko ne ko waaw yow imaam sa sëriñ la wala déet mu ne maa jàng ci imaam du sama sëriñ man ñaari daara laa jàng Ibrahima Diallo leer la ñaata la ko dénkoon maa ngi ñëw rek ñaata la ko dénkoon. vingt mu ngi ko dénkoon daal xaalis bi mu ngi tolloo woon ak vingt sept vingt huit billets euro yu cinq cent cinq cent yëpp ñaata la. Euh, man xaw ma nañ ko calculer. mais daal ba takku na nees mën a dénka dénkaane xaalis bu ni mel. looloo tax. waaye dañuy waxtaan gars yi enquête kat yi jàpp ni euh, loolu du explication bu bu taxaw. ba El Hadj Babacar imaam biñ koy jàpp booba ñoom gisuñ xaalis ñëw nañ ba kër a xool 14000 euros. mais rëy rëy maanaam rëy rëy gañ fa indi woon cale leen yàlla téye seeni bët ñëw nañ yëkkati fi xaalis bi nekkoon dal di sànni dëgg dem bañ fay bàyyeekoo 27300 lañ fa fekk. donc El Hadj Babacar ce que man su fekkoon ne xamante nañ maagee wala ñu jaar fenn fi aw ma droit ñëw dénk la xaalis mais ndax dénkaane mën nañ ciy téye nit su boobaa képp kuy sénégalais ku ñuy dénk xaalis nañ dem jàpp la même nañ dem jàpp banque yi donc loolu normalul nit am na sañ-sañu seet kam wóolu mu dénk ko bokk na ci li ko juge bi laaj mooy danga ko koo dénk pour war ko jëlaat wala dootoo ko jëlaat mu ne danaa ko jëlaat kañ nga koy jëlaat mu ne su ma bàyyee koo Gàmbi bi mu ko dénkee imaam ñeenti fan lañ ci teg ñu jàpp imaam donc su doon keneen mën nañ denc xaalis bi sa xaalis bi sama loxo la nekkoon mais dañ koo téye ba jugement bi ñu dal di indi xaalis bi jébbal ko avocat yi ñu dal di ko jébbal tribunal su doon keneen koo xam ne nii ku bëgg lu muy lekk la biñ téye imaam ak léegi mën nañu xam ne ah xaalis bi kat ñun soxla nañ ci nangam ak am nañ ko jéem a lekk mais xaalis bi bët mosu koo teg bi maanaam man mi ko téye woon sax mosuma koo compte lu dul kerek. xaalis boo ko xaymaa 9 millions CFA la. voilà nga loolu ndénkaane googu rëy na. te banque yi nekk fekk lu ne. imaam biñ koy door a téye lu ñu doon wax du ay milliards. donc wàcc ba ci ay millions loolu daanu la. ñaata milliards lañ waxoon ne lañ fa fekk te fekkuñ fa dara donc dossier bi fii mu toll nii jaaxal na leen gépp jaaxal. leneen képp kuy dem hmm. tribunal itam di xam ne nit su fekkee ne am na lu koy jaaxal muy rus maanaam damay wax ne Sénégal ba muy nekk réewu garmi su fekkoon ne tey la am na ñoo xam ne ca tribunal bu foofu la ñuy dee wala bu ñu génnee daal di démissionné. koppar googu ñu wax ak xëy na jëflante yi nga xamante ne nee nga amut. leneen fës itam ca tribunal euh, ay vidéo yi nga xamante ne wane nañ ko fa euh, ay vidéo exécution xaw a lool sax. ci ci ordinateur moom ci ordinateur am moom mu nangu ne xëy na xëy na da ciy jàngee. loolu xëy na moo euh, est-ce que jàpp leen ne c'est fondé itam nit ñi tey xel ci wàllu. lu mu ko doon doyee ay vidéo yu wane ñuy faat nit. di leen yooyu. sa waay bu dee ne wàllu rey nit rek moo tax ñuy jàpp nit. tele yëpp nañ leen tëj télé film yi ciy nekk ci wàllu rey nit kenn xamul nu mu toll. donc un charge gëstukat am na droit lépp loo xam ne day dox ci àdduna bi mu jéem koo gëstu. ay 18000 vidéo ren di. non moom wax moom lam leen wax sa ëpp na loolu danay centaine. te li jaaxle. Hmm. mooy ordinateur bi. la ci nekk ci ay rey benn la mais am na wàllu franc-maçon am na wàllu góor jigéen am na wàllu Israël am na États-Unis am na France am na nangam nee na am na fa sax ñoo xam ne centre Afrique bii dañ leen jàpp di leen lekk comme ni ñuy lekkee ndawal lan moo tax wane wuñ lool dal di jël benn côté rek wane ko donc lool pour sëlam xelu sénégalais yi la ñu naan vidéo vidéo yow sa ordinateur vidéo nekk ci man noon keneen noon la nekk est-ce que nit ñi xam nañ ko. moom ordinateur yu doy waar ci nekk. donc boo damay ne su dee yu boo demee ci télé yi suñu seen yi. li ci génn kenn xamul nu mu toll est-ce que dañ naan ku wane boog lu dul noonu dañ la war a tëj dañ la war a jàpp ci loo xam ne sax moom sàmba gis la démb gis la le 19 juillet ginnaaw waxtu wi euh, nañu le 19 juillet la dogalu bi euh, yaakaar ngeen ni imaam dañ ci génnam bu fekkee ne yoon rek a am Sénégal maa ngi bàyyi xel nag yoon su fekkee ne yoon rek am Sénégal incha allahu le 19 le 19 juillet moom imaam dana ñibbi donc ñun moom ñu commencé féete suñu victoire. jërëjëf su leneen amee nag dañu xam ne kon Sénégal li ñuy wax ne réew yoon la moom yoon amu fi. ñu ngi leen Abdoulaye Ndaw rakku imaam Ndaw bu Kaolack jërëjëf yéen doog jàmm jërëjëf Alaaji Georges Diop. RFM matin RFM matin émission bi yee waa Sénégal.